Allô Allô Wow, monsieur le ministre. Wow, vous allez bien. Mamadou Moussafa Mbaye Dakar Actu. Moustapha na nga def. ngi c'est par rapport à euh, li nga wax intervenir as euh, li dox ci Mansour Faye Ousmane euh, mhm. c'est vrai que depuis juillet Ken déggu ci actualité. gannaaw bi nga Euh, tey coow lii man dama xamul exactement lan lan moo la ci concerné mu mel ni kon cellaaral googee da nga cee jóge bëgg euh, jëlaat coow li am loo ci wax ma bëggoon xam lu ko waral waaw <clears throat> li ko waral <clears throat> mooy comme ni nga ko waxee maa sabab lu wax waa daanaka depuis ñetti weer kenn déggu ma wax ni ma koy faral di waxee man su ma sañoon sax du ma wax mais parfois nak euh, situation ak actualité bi mo lay euh, mo lay pousse si nga wax euh, donc ñak wax bi du peut-être ñak trop problème wax mais lu si mënti doon rek dafa am nuñ koy defee donc li, nga xamné ne ci sabab wax donc dafa nek lo xam daf dafa ma yitteel mhm. te man dafa am ci principe bo xam ne dama koy doxee nguuru Macky Sall ak ñi ànd ak lu lu laal ma sàmba rek laal na ma demba donc comme ni ma ko waxee ñun ñëpp ci benn gaal lañ nekk gaal gi joowkat bu mag bi ki ci kanam di joow di chef bi mooy président Macky Sall donc ci li ma xalaat mën nañu ŋaay am ay ŋaayu suñu biir ñun mhm. ci suñu biir Benno suñu biir APR mhm. mais fu mbëkkante am rek ŋaayoo entre ku bokk ci njabootu Macky Sall njabootu politique bu Macky Sall ak kenn ci kujjante yi rek daf ñu war a concerner ci kenn ku nekk mhm. rawatina nag su fekkee dafa mel ni man yeneen ñaari ponk yu am solo ci ko seq mhm. ak Ousmane Sonko di Mansour Faye suma xarit mhm. du xaritu politique du xaritu nguur xaritu démb la eh, suma ak moom jege trop mais bi jigéen am solo dama dama dama xam fekkee saytu xam ni dëgg la nekk parce que nag Mansour euh, lu mu nekk nekk suma xarit li mu wax su lépp mu ci dëgg tamit jaruluma euh, may ànd ak moom ci lu dul dëgg donc daanaka considération yooyu ma la limal daal moo motivé ma ne nag damay wax. kon su ma déggee sa wax mooy euh, wax moo jot moo tax nga na ma wax te it Mansour sa xarit la. waaye day mel ni da nga ci jubloo dëggal waxi Mansour Faye yi mu jël teg ko ci kaw usman Sonko euh, lan nga xam ci mbir mi. Moustapha loolu kenn werantewu ko gis nga Mansour li mu wax. mais nah, lu ñu bari xam la ñu mhm. bari xam ko gis gitu nga ya, daje boobu am entre Mansour Fay. Cheikh Issa Sall ci jamono mi xam ne Mansour Faye mooy délégué général à la solidarité nationale Cheikh mhm. Issa Sall bi nekk tey directeur de l' agence de développement municipal nekkoon secrétaire généralu DGSN mhm. ba pare di naataango Ousmane Sonko ci njàng daje boobu ñett ñi ñëw si Mansour Fay, Cheikh Issa Sall Ousmane Sonko te Ousmane Sonko moo ko te sabab bi limu mu wékku woon ci lenn lo xamni euh, secret de police na la ñëpp xam nañ ko mak tay ni ay nekkon ancien directeur u cadastre mhm. yoon daloon ci kawam ci parce que diñ ko tumalon ci ay njut njaaj ci mbirum suuf mhm. te tay bi njaay bobu nekk nak euh, luñuy wax parrain protecteur mak

Eh, yàlla mi nga xam ne dafa bare doole te yàlla bugul ñuy njuuj njaaj ak wax yenn affaire mbir mi ci ni muy déroulé dinañ ci ñëw ci kanam mhm. fu mel ni li wax mooy dëgg Sonko la mu weddi <laughs> ni amul moo ko def te looloo am alors monsieur le ministre euh, exactement euh, bi nga xamee ni président de la république yëg na ne euh, Ousmane Sonko mu ngi sàkko woon jàppal tànk Tahibou Ndiaye lan moo nekkoon réaction moom président de la république mais gis nga tontu boobu comme li tubaab di wax rek ça coule de source parce que Macky Sall quand même kenn du ko fekk wala nga koy natt ci e, yoon magistrat yi di atte nit ci muy dugg di damm loxo magistrat yi di leen wax bàyyi leen donc loolu jarul jarul laam laamee bañ koy wax président man fekkewu ma ko mhm. bañ ko koy jotli fekkewu ma ko mais réaction man e, xam naa loolu parce que Macky Sall defe na amul ci ñun ku mhm. am fit ci ñu wala muy procès boo xam ne dafa concerné ci keneen koo xam ne sax euh, daanaka nekkul ci ñun wala leneen loolu du jikko Macky Sall mhm. alors euh, est-ce que dafa am benn enrichissement bu nuy wax nu ñuy waxee diggante Mansour Faye ak ak euh, euh, Ousmane Sonko enregistrement mhm. boobu euh, te Ousmane Sonko wax ne amul. Mhm. yow lan nga ci mën a indi ay tegtal. waaw laaj bi nga laaj. ah.

ah eh, nu mu tuddati Ousmane Sonko. te mhm. li ma kan si xam tamit ba léegi Ousmane Sonko enregistré wul kenn si ñoom ñaar. mais mhm. enregistrement am na. waaw mais mais kon ban enregistrement la Mansour Faye di wax bu dee ñoom seen waxtaan boobu amul mhm. kenn ku ci enregistré sa morom. mais enregistrement boobu Moustapha ah. lu ci ndaje boobu la am. ok élément sonore boobu li tubaab di wax une preuve matérielle irréfutable mhm. te mi ngi diire suma juuma fanweeru seconde mhm. ah am na mhm. buy feeñal dëggal li Mansour wax waaw voilà loolu moom mën naa ko firnde léegi ñun ñun lii nga wax nii ci lan lañu mën a sukkandiku euh, pour mën a xam ni boobu lu am la ah mais soo bëggee mën naa la kat mën naa la ko tegal nga déglu ko. enregistrement bi ci boppam. waaw mën naa la ko tegal nga déglu ko soo bëggee sax après ma jox waaw après nga jox ma ko. maa la koy tegal nga déglu soo bëggee. d' accord est ce que mën nañu xam euh, enregistrement bi. <laughs> mais mais déjà je ne savais pas que affaire nii ngeen garaawee mais ça va man maa ñëw sukkandiku surtout pour demander strict. parce que et quand tu vas qui a qui va qui a beaucoup insisté de me ton patron va voir et c' avant que je politique mais day na waar quoi xamoon la gars yi mën nañu wàcc à ce niveau mais comme tu es le témoin tu vas <laughs> tu vas faire le témoignage ak euh, monsieur le ministre. do doomu baal nga tegalaat ma ko. mais mais sëñ Cheikh sëñ Cheikh tey paquet nu affaire nii ngeen garaawee mais ça va man maa ñëw sukk di ko suuf yëpp pour demander un truc. toi tu étais présent et toi qui m'a qui qui a qui m'a qui a beaucoup insisté de mettre ton patron au pouvoir et c' était avant que je m'engage en politique c' était en 2013 mais day na quoi xamoon ne nag gars yi nañu wàcc à ce niveau là. Ben, comme tu es le témoin, <laughs> tu ni ok eh, mën nañu xam audio bi ban ban date la woon. Euh, Moustapha. Mhm. audio bii nga dégg mu leer. Mhm. xam nga waxatul ne rencontre am. waaw waaw waaw waxul na am na te 2013 la. Mhm. te Cheikh Issa Sall mooy témoin bi. simplement euh, li wax te science mhm. mhm. bi woon ne affaire nii la ñu lu te ñeme nañ yegg fii. te beneen ba ma ngay wax ni non non moom du mom moo sabab rencontre bi. Mansour a ko lu xam nga loolu wute na ak li mu doon wax ni Mansour dafa kàcci. rencontre bi musul am. ma ngay wax ni du moom moo lu rencontre bi Mansour mais su Mansour lu rencontre bi Ousmane 2013 la koy doyee. nous Ousmane Cissé bi ñu xam 2014 du 2015 du 2016 du ba mu nekkee député 2017 du bu mu génnee donc xam naa ñu leer na léegi nag ma dellu si laaj bi nga laaj. Mhm. enregistrement bi euh, Moustapha amul fukki fan. Hmm. amul fukki fan. te Ousmane Sonko moo enregistré boppam. Mhm. ma leeral. Mhm. ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru septembre 2020. ci mm-hmm. la Mansour Faye dem ci benn télé bu ñuy wër 2STV fa la waxee déclaration bi fa waxee affaire bi mm-hmm. ni Ousmane Sonko sabablu woon na ci at yooyu gisanteeg moom waxtaan ak moom pour ma président Macky Sall intervenir ci dossier Tahibou Ndiaye ba Mansour defee déclaration vingt neuf septembre deux mille vingt Ousmane Sonko tiit yaa ngi may suivre mm-hmm. maa lay siiru bu baax bi mu tiitee li mu njëkk def réaction bi dafa jël téléphone am woo Cheikh Issa Sall jotu ko. Mhm. mu woo ko woo ba sonn jotu ko. bi mu talaata boobu bi ñu toogee ba treize heures vingt neuf une heure bu bi mu paasee ñaar fukki minutes ak juróom-ñeent ci la def audio bii envoyé ko Cheikh Issa Sall. te mhm. xam nga ku xam Ousmane Sonko ak kàddoom ni mu dëgëree. Mhm. ak ni mu wóoroo kàddoom xam nga lii muy waxee fii jànnaxe na. Mhm. mais donc ñëpp mën nañu yëfu amateur ta def. ay yàlla su lay ah? doo xam ci affaire yi di jógee. donc ma baamtuwaat wax bi. le vingt neuf septembre deux mille vingt def émission boobu wax li mu wax bi mu ko waxee Sonko dégg mbir mi tiit. première réaction moo naataangoom ci njànge. ah li ñuy wax camarade de promotion Cheikh Issa Sall mhm. ki mu jaaroon pour dem gis Mansour woo ko te li nga ko dégg nga ko ci ci ci audio bi mu ni ko daal ndeke na yeen waa après nii ngeen gravé mhm. xalaatuma woon ni dinañ yegg si fii ah d'accord rencontre bi yow yaay témoin bi deux mille treize la woon ah te Mansour moo ko sabablu woon donc xam nga donc Sonko wax na fii weer boppam ni rencontre bi am na te loolu indi coow li nee na Mansour Faye day kàcc donc le vingt neuf septembre deux mille vingt mhm. weer bi passé mhm. ci la affaire bi am tey ñu ngi ci six octobre mhm. donc mën naa ni jox fan la am donc moo moom moo enregistré boppam audio envoyé ko Cheikh Issa Sall mi directeur u ADM d'accord wax bi donc leer na frank laayu na. léegi monsieur le ministre man li ma jaaxal mooy son bii Ousmane Sonko moo ko def. envoyé ko Cheikh mhm. Issa yow nga jot ci. ba pare nga mhm. nga nga ñeme ko dugal ci euh, euh, média bi. est-ce que mhm. yow euh, ragaloo ni ay procédure judiciaire mën na laa topp ndax yu fi jàmbur la. waaye man ni Ousmane Sonko waa Pastef ak seen i ñoon ñi ñu àndal seen tribunal Facebook la te man loolu ragaluma ko. mais plus sérieusement suñu ma plainte mais mhm. c'est le mm. mhm. risque du métier entre guillemets politique lañ nekk na nga plainte mais man je préfère risquer une plainte que dëgg bi feeñ parce que sénégalais yi dafa mhm. war a doy foo yegg foo xam nga lu ñuy xool toujours ci dëkk bi du ñu xool wala ñu atte ku dóoraate soof yow ñu bëgg la yedd et puis Sénégal dafa am importance du lu ñuy fooye mënuñu fi nekk wala ay politiciens di saax saaxe xelu Sénégalais yi ay magum jëmm di di woote maa jub maa lii maa lële fekk ñoo gën a dëng once yi moo tax comme ni ko xamee sama xarit la mhm. d'accord ci démarche bi mu def Ousmane Sonko faut utiliser les mêmes armes utilise pour duñu sosal di yàq suñu der di wax loo xam ne guddi ak bëccëg moom ak ñu niroo ñoom wékkuwul ci ñuy dëgg audience bi am na su fa yemoon xam nga li yàlla subhanahu wa taala dafa bare doole ah mhm. su mbir mi yemoon ci li Mansour wax ala kulli ale xam nga nit ñi lu ñuy wax mhm. ak kaddu Mansour la ak Cheikh isa Sall contre kaddu Sonko ak bu leer du fa am mais Sonko yàlla moo ko nattu bi Mansour waxee loolu mhm. mu jànnaxe tiit jéem jot Cheikh isa jotu ko mu enregistré vocal envoyé ko léegi nag bon xam nga Jornalist bou doublek politik, bou men ni manan, ken do man lak te li ngayot fok wadjele? Ken do man wak lak? Men, li ngayot, eske inwansyon la? Eske do inwansyon? Do inwansyon, son kou mounou kou redi? Mounou kou redi ni moun, yon ne, bata akal, ki a yi kal do, moun anri se moun moun kou yon ne se isa zan, ki di bata akal bobo, moun fenye l bopom ni kodyans bobo amna, en 2013 siège DGSN Cheikh Issa Sall maintenant ya, muy um, uh, man uh, wala wuma mhm. nit ñi xam nga li nit ñi mhm. sonko day loxo yu set mhm. te ñun xam nañ ni ay loxom ok parce que dafa bari xam dañuy loxo set te loxo te ah lu ci bare mu ayib day woote ni moom amul benn musul vertu la dafa woote ni Mansour Faye li mu wax du dëgg mhm. ah mhm. Mansour nag su ñun la bokk soo ko tuumalee mhm. ah euh, ba ñu dem ba yàq da doo Mansour du ñu si dara Mansour du kilifa Mansour tekkiwul dara parce que su waxee ak yow da lay enregistré Mansour enregistré wul kenn Sonko moo jël vocalam enregistré ko envoyé man nag jot naa ci loolu stratégie ay yónni yu seeg ay con Sonko dafa amul sax sama gis-gis la hein? Sonko dafa amul solo booy conférencier de presse di ko tontu am na lu mu def mm. weddi ko bind bataaxal xam nga mënuñu ko effacer bataaxal yooyu hein? ah ni Mansour waxul mm-hmm. nga am firnde boo xam ne moom day feeñal ne moom moo waxul dëgg nga génnee ko léegi conséquences yi am comme li tubaab ba ak yéen que pourra parce que man dama engagé wu ci wetu président Macky Sall ah donc euh, engagement du lu neex rek mënuñu engagé boo xam ni lu neex rek tey maa ngi directeur général soleil ah mhm. à parti bu neex la ah mais tamit su ma waree takk ci xeex ci sóobu ci xeex ma dama ciy tax rip sinon su fekkee maa dem nag bu mënatuma lolu ah mhm. bëgg nekk ci wetu Macky di bànneex bi rek salaire yu baax avantage yu baax su ma waree takk ma su ma su ma naree ba yegg foofu ah loolu pour man sama gis-gis joxuma leçon sama gis-gis xool. mais monsieur dafa am seetlu dafa mel yow dafa am ay compte personnel bëgg rek Ousmane Sonko te sax dafa mel yow parti bi xeetu justifié justifié nga fa. Euh, yaay régler problème yi yaay yaay xeex xeex bi lan moo dox sa diggante Ousmane Sonko ba mu mel ni da nga non euh, Moustapha nit euh, mere ah. dafa fekk ngeen nekk en contact. dafa fekk ngeen seq dara di ko xëccoo. Mhm. mais mais xam nga Ousmane Sonko moom daf ñu noonoo xam nga noon ak adversaire du benn. Mhm. noon ak kuy kujje kujjante du benn. Mhm. moom daf ñu noonoo comme ni mu ko waxee rek moom lim ñu yéene. ah mooy bis bu ñu fi jógee. bis bu àpp Macky Sall jotee. ñii ñu tëj leen kaso ñii ñu yóbbu leen ci peloton fatal leen ñu dee. man yé moo ko wax. mon président ancien président sénégalais, yi kay dina war a fusillé moo ko wax kooku leer na weddi wu ko moo ko fi hmm. donc ancien président sénégalais, mooy bisbom, boobu ñoom bis bu suñ jotee ci nguur te ancien yooyu fokk Macky Sall jot ci. donc yeneen ñooñ ñi Macky Sall xam naa yéen leen fetal peut-être wala peut-être dinañ ci am ñu ci fetal mais li ci leer ñeneen ñi kaso donc moom daf ñu noonoo teguñu man Ousmane Sonko talu ma ko ba koy noonoo sekkuma moom mais hmm. c'est-à-dire xam nga fi ma wutee li ma euh, li ma. Melula Ousmane Sonko mom mhm. ci prebes euh, suma djumu te sama xel nakuma 675 675000 sénégalais wotel février 2019 ñu ngi seen choix je ko respecté mais ñun suñu candidat président Macky Sall 2 millions 525 Sénégal Sénégalais ñoko falat 58% mom vous bëgg respecter huit millions soixante quinze mille mais 2 millions 500 cent il seen kaddu d'accord ma fat Ousmane Sonko te ko xamné républicain nga respecté nga démocratie respecté nga état mënoo ci d'accord mënoo ci d'accord ak mom mënuma d'accord ak Ousmane Sonko ah. mm-hmm. que te ni représentation nationale moy assemblée nationale hein lu ay téméré quelques députés yu fa nek mom rek moo fa pourtant député députés, fa sont ñu si bare l'écrasante majorité 99% peut-être ah. Mhm. dañ leen élire si ils bu jaar yoon moom lan lañ ko élire plus fort reste ay desit desitu kàddu lañ ko lañ ko fale. moom moo taxaw si ñëpp dégg ko mu ni ñooñu nek assemblée defoon commission xaw ma dànke lan di c'est des petits députés corrompus qui ne savent rien de la conduite d'un État je pense que Sénégalais il fallait tenir seen député ah, yow nga ne da ngay joxe exemple danga bëgg réew mi taxaw tey nit ñi c'est de petits députés corrompus saaga woo député ñi leen sol nga saaga donc comme ni ma ko doon waxee fii yaakaaruma ni xëccoo réew mhm. Ah? Mhm. bëgg nekk président jar na ngay taxaw di wax suba ancien président euh, <coughs> sénégalais yi Abdou Diouf mérité na lu bare Abdoulaye Wade mérité na lu bare Macky Sall mérité na lu bare et puis fi may jeexalee ah gis nga Moustapha mhm. politique ak ambition jarul yëngal réew. Hmm. Euh, Casamance. stabilité ma. Hmm. dafa am solo. Hmm. stabilité euh, Sénégal dafa am solo Casamance ba alhamdulilah ñu laal bant. jàmm dellu si waat na mais jàmm bu fragile mënoo mënoo ko mënoo ko politique donc dafa am man aw ma noonoon teg moom. mais ni muy doxalee. te puis xam nga ñoom dañuy.

respecté wul état respecté wul day day génne ay mbuutu état am lim la mhm. respecté wul stabilité bi boobu c'est un patriotisme de de de de lan de au rabais. mais même soo dee patriote. Ousmane Sonko opposant la aussi comme nekkul seen parti aussi vraiment mënut a noppi. ci non non mais opposant mhm. opposant mhm. sénégalais la. dëgg la ki nekk au pouvoir sénégalais la. xam nga dafa am Moustapha mbir yoo xam ne ah. moo ñu dajale. par moo nekk au-dessus de tout. Mhm. moo nekk au-dessus de lépp mooy la république l'État moo nekk au-dessus de lépp ak gis nga caractère indivisible du Sénégal c'est-à-dire caractère stabilité Sénégal ah. Mhm. Euh, jàmm xam nga même julli. Mhm. julli. jaamu yàlla. waaw xam nga ci gën a fo kawe la bokk. dëgg màggalu Tuuba. xam nga du ay caaxaan. dëgg dem sargal seigne touba mhm. dem gamu ji tiwawon mhm. jour bi yonte bi sallallahu alaihi wasallam gane aduna xam nga lol du du du chaahal xam nga dem euh, nu mu tuddati pèlerinage chrétien mhm. dem mess même si nga xam ñu l'islam bi jumuñu euh, chrétien bi ah ñi dugg ci bois sacré animiste fi mais loolu yépp balaa koy mën def lan lan moy lan moy lan moy li ëpp solo jamam, d'accord fan la ay bal di takki nit di julli fan la ay bal di takki nit di gam wala ngay magal donc da doon xam ni kenn waru ko fooye politique waru justifier que Ousmane Sonko nekk fi di manipuler ay affaire Casamance di tol di ay Casamance Macky Sall bugu len mais ni Casamance dafa bokku ci Sénégal voilà donc yoyu mhm. c'est des trucs fondamentaux yo xamni d'accordu ma ci mais waxuma la sax man awma en bu mais dama amul sax jotu enante ak Ousmane Ousmane Sonko parce que y a aucune raison may enante moom simplement on est en démocratie euh, il faut il faut débattre argument contre argument waaw mais li mu wax moom ci ay preuve Ousmane Sonko du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon du fukk yoon la wane ni moom du wax kutu dëgg bon loolu moom xam naa ne dama lay bàyyi moom dana la ci tontu war a mbokk euh, ay ay ay militant ci Facebook bi moom xam naa ne. loolu ragalu ko parce que xam nga naa nu demee sànq mu mujjee wax ci ñoom ah. Eh. am na benn ñoñ bu mu àndal saaga na ma fi ne man ab xaj laa donc su ma saaga ba dëkk bi lóor tamit loolu loolu loolu yëngalu ma. d' mais monsieur le ministre. loolu loolu loolu yëngalu ma. d' accord man loolu bi mu ci am. Euh, <laughs> kon d' accord ah, lay remercier bu baax a baax. ma c'est moi qui te remercie. voilà jërëjëf. ah merci.